bu baax di leen jàmm di leen wax baatu asalaamaaleykum wa yaakaar naa ne li ñu dajale fii nag tey jii yaakaar jombul kenn ci réew mi pour loolu dal la lu ñu dajale fii tey jii yaakaar naa ne jombul benn doomu réew ndax bépp doomu aadama buy dund ci kaw suuf rek natt suñu borom jomb la bépp doomu aadama buy dund ci kaw suuf rek natt suñu borom jomb la tey jii nag yaakaar naa ne ñu def benn jàkkaarloo ak nga xam ne tey jii mooy presse Sénégal bi ci suñu frère la de Guiers numéro 2. yoon teg ko loxo moo tooñ moo tooñul ñun loolu du suñu domaine li suñu domaine rek mooy day doomu réew mi te bokk ci axlu làmb te ku ne Fadam ne Boucher ay produits làmb lañu tey jii nag yaakaar naa ne bu loolu amee boobu ba léegi waxaguñ ci mais ñu ngi ci doon def ay démarches ak ay quelques vidéos yoo xam ne ni tey jii pour li gën a concerné rek mooy tey jii Lac de Guiers numéro 2 fa mu nekk solution mën cee am ndax fa mu nekk du. mooy cëram Lac de Guiers numéro 2 fi mu nekk du cërëm du place am ndax yaakaar naa ne bokk na ci lutteurs yi nga xam ne nii ci wàllu làmb moom lañ daan wax ne bokk na ci làmb mbër yi gën a yaru ci làmb bokk na tey jii ci mbër yi nga xam ne ni tey jii kenn mus koo dégg ci toxi doona bokk na ci mbër yi nga xam ne ni tey jii bu ñu doon adressé mbër ne tey jii mbër yi gën a téye seen bopp Lac de da ci la bokk te bu yàlla defee ba yoon topp ko ñu am lu ñu ko jiiñ moo ko def wala defu ko tey ji lépp lu luñ ciy def mooy ñu ngi masawu ñi nga xam ne tey ji dañ ne ñoom la Lac de Guiers numéro 2 siqal te yaakaar naa ne tey ji masawu googu ñu leen di masawu alal dafa sax ci xol ak képp ku mënti doon nga mës a siq ak Lac de Guiers numéro 2 dara ñu ngi sukk suñuy tànk di la jéggalu ak lépp lu ci mënti am ak lépp loo xam ne tey jii moom lañ bëgg a développé mooy gis nañ ay mond tamit ci mond làmb ay journaliste làmb yoo xam ne nii tey jii communication yi ci def rafetlu ko li tax rafetlu ko mooy biñ ko communiqué dafa dugg ci tey jii moo gën a aggravé problème mu Lac de Guiers numéro te loolu tamit nit bu nekkee ci wàllu yoon bu doomu aadama di ci wax na ci wax loo xam ne nii moom la maîtriser leneen lu mu ci maîtriser wut mu toog xaar ba am ci lu mu ci maîtriser mu doo koy wax. tey jii nag la de Guiers numéro li tax tey jii ñu gën a def jotaay bi balaa ma cee ñëw damay bàyyi bu si ci nuyoo ñu doog ñëw ci waxtaan wi après lépp lu ci mënti am rek ñu daal di koy àggale ak message yi ñu bëgg lancer ko tey. waaw salaamaaleykum ah maa ngi nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di nuyu presse sénégalaise yëpp ah di wax ni lii man sax musuma def lii ay conférence de presse waaye nag nit ku nekk am ngay mbokk te ñun Lac de bu ñu naan ay mbokkam ñun ñii la ndax ñun ñoo nekk ak moom géejawaay ñoo dëkk ak moom géejawaay bokk ak moom làmb ji mu nekk nit koo xam ni bi làmb sosoo ba tey kenn musu ko dégg ci lu ñaaw kenn musu ko dégg mu wax lu ñaaw wala mu def ko tey am na yoo xam ne nag yàlla moo koy teg doomu aadama muy nattu jomm ma jommul fadam te jommul kenn ci yéen ñi fi taxaw te kum ci daloon tamit lii ñu def nii di nga bëgg ñu defal loxo wala ñu jàppale la wala nit ñi wallu la te la dëgër nag ay mbokkam mooy waa làmb ay mbokkam mooy ñi mu jege ay mbokkam mooy ñi mu doon sekkal liggéey te ñun ñii génnuñ ci te lii ñuy def nii dañ ko def ak xol def ko ak yéene def ko di ñaan yàlla nag mu réussir balaa ay fan ndax loolu moo ñu war loolu ci la ñuy dox mais dañuy ñaan rek àdduna bépp ñaanal Lac de ba pare taxawu ko surtout waa làmb parce que amuñu lu ñuy lu ñuy leem-leemal wala lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy naxtaan amul Lac de ci làmb la bokk tey amaana am na mbër yoo xam ne tey bu doon lii da leen a arrivé tey waa làmb yëpp jóg ne dama koy njëkkee ci waa CNG nañu génn dooleel Lac de taxawu ko te taxaw taxawu nag du rek la dëgër war naa taxaw tribunal rek adduna bi yëpp màbb dem tribunal taxaw fa coow li bari riir mi bari ku nekk di wax sa wax ku nekk di génnee sa téléphone di filmer ku ne di wane ni man maa ngi tribunal ku ne di wane ni ba muy taxaw taxaw naa fa loolu du wax ci wax ji leen rek la wàllu yoon dafa sew te nag yoon bu bu si nit nekkee dañuy nangu ni yoon la te yoon day def liggéeyam ba pare kenn bañ a wax dara waaye am nañu droit ñaan yoon am nañu droit ñaan nit ñi ñu jàpp ci am nañu droit def ay pexe te ay pexe nag du wees na la de guerre bi mu fa nekkee léegi mi ngi bëgg a yàgg te boo gisee ni boo communication bi dafa sooxe biñ ko biñ ko jàppee ba tey kenn waxutu ci ñëpp ko fàtte ñëpp ko bàyyi foofu ku nekk di dox sa doxi bopp loolu du yoon te la de guerre ci làmb la bokk na ñëpp génn waa làmb nañu génn jàppale la de ah bu dee moo tooñ ñu baalul ko te li mu tooñee ñu jàppale ko jéem a xool nu ñu ko fajee bu fekkee tooñul ñu xool ndax tooñul ñu jéem koo jëlee fële loolooy àdduna parce que nit ki bu nekkee bu mënulul boppam rek yow mi nga xam ne yaa ko mënal da nga koy jàppale ba bis boo leen taxawee doo rus ba wala bis boo leen taxawee dina xam ni kii kat yàlla def na ni sama mbokk la te nag mbokk kenn du ko forcé mbokk day naturel te li mu naturel mooy ñoo bokk làmb ji ñoo bokk lépp na waa làmb génn ndax la dëgër amul lu dul làmb yaa ngi dégg fii lañ ko doon jox ay trophée gën a yaroog trophée du saaga du xuloo du xeex trophée discipline lu la jox nañ ko ko fi léegi trophée yooyu nag pour ñu wone ni trophée yi dëgg la pour ñu wane ni trophée yi lu wóor la na waa làmb génn di ci woo waa CNG ñu njëkkee ci parce que ñoom ñooy suñuy njiit ñoom ñooy suñuy nguur ñu génn mbër yi génn promoteurs yi génn arbitre yi génn waa làmb yëpp génn presse bi yëpp génn parce que presse bu ci nekk tamit la dëgër mos na la ji teraanga ndax utiliser nga image pour ñu fay la weer kon na ñëpp di wax ci moom lu baax ñëpp jàppale ko ñu jéem a ñaan yàlla mu génn fële mu ne ci loolu lañ ne nii te loolu lañ taxawee nii. yaakaar naa ne loolu am na solo foofu buuse génn am na solo trop mais man point bi may ñëwaat rek mooy point bi ñu gën war a mën a bàyyi xel semaine yi ñu génne def nañ ci benn vidéo boo xam ne nii vidéo bu am solo la ba am na ay kilifa yoo xam ne nii tey jii seetaan nañ ko am na ay moye yu ñu développé génne ko ba mu tolloog cinq millions jox nañ ko ñi nga xam ne tey jii ñooy waajuru Lac de Guiers numéro 2. suñu papa alaaji Bécaye Mbaye ñu ngi ko ci sant bu baax ndax yaakaar naa ne tey jii loolu boo amee tamit bi mu jógee ci ay loxo ci ay loxoom la jaar ba alaaji Bécaye Mbaye mi nga xam ne ni mooy suñu père Bécaye xaalis boobu àgg na ci famille Lac de Guiers numéro 2 mi 25 millions. mais 25 millions yooyu doyul dañoo bëgg képp koo xam ne ni autorité nga ci réew mi dañoo bëgg képp koo xam ne ni kilifa nga ci réew mi dañoo bëgg képp koo xam ne ni tey jii làmb mës na laa defal dara tey jii dafa am ay ñoo xam ne ni tey jii ay kilifa lañ ci réew mi te ñun waa làmb kilifa yooyu fu ñu mosaan a tourné dañ leen di gis te ñooñu ak Lac de Guiers numéro yàgg nañoo séq ay teranga ñun wootewuñu ngir tey jii lenn loo xam ne ni tey jii dañoo ñëw pour bras de fer ay ndaw lañ yoo xam ne ni tey dañoo nekk ci réew mi ñu am suñu frère bu tudd Lac de Guiers numéro mu nekk foo xam ne ni tey jii guddi yi mu toll ndimbal rek la soxla soxlawul moo def soxlawul deful benn problème lañ am suñu diggante ak moom mooy ña Lac de Guiers séqal ñun balaa dara dinañ leen fay duñ fay dañu leen di jéggalu ci li am seen diggante ak Lac de Guiers numéro ba pare ñu ñaan leen ñu yàlla may leen xolu muñ ñu xam ne tamit tey ji kilifa yi nekk ci réew mi képp ku am teranga boo mën a jàppale Lac de Guiers numéro nga bañ koo def sax ñu médiatiser ko moo gën nga woo ku mel ni papa bekkaay mbay Mbaye nga xam ne tey jii kilifa yi njëkk a woote ci loxoom la ñu jaar nga woo alaaji Bekaay jaar ak moom ci suuf mu woo ay waajur Lac de Guiers numéro 2 ñu jaar fañ daan jaar ndax tey jii fu 25 millions dugg buusee bu fa leneen duggee. la de Guiers numéro 2 la fa des dootu bareeti te loolu yéen tëwu leen yéen kilifa yi waa làmb rek. waa làmb rek loolu tëwu leen waa bu kenn joxee 100000 ku ci ne bu joxee 100000 rek bor ba jeex. waa làmb rek. waaw kon nag. mais forcé wuñ ci kenn. Mhm. waxuñu ci kenn lenn. nit nag ndimbal na ca fekk loxo yi borom dëgg la waaye nit mënta ne fa mu ne fële di jàppale boppam ñun ñi nga xam ne ñoo ne ci biti ñoo koy jàppale te dinañ ci wax ba mu sotti incha allah rabbi ni ko Fadam waxee rek 25 millions yooyu. alaaji Bekaay mbay jël na ko jóg jébbal ko mbokki Lac de Guiers 2 loolu ñu ngi ciy gërëm kilifa gi ko def te bugg ci feeñ bugg ci ñu wax turam te noonu ñu ko waxee noonu keneen ku ci jàppaat kenn du wax sa tur kenn du la tudd kenn du la wax lenn te boo ci bëggee jàpp mën nga cee jàpp alaaji Bekaay mbay mi ngi fi boo ko woowee téléphone dina la fekk fi nga ne loo koy jox nga jox ko mu jàppale ko Lac de Guiers 2 parce que tamit ñi bu fekkee Lac de Guiers ñi mu tooñ dëgg la ñu ngi leen di jéggaluwaat bu baax a baax a baax di leen ñaan ñu jéggal ko di leen ñaan tamit ñu jéem a xool nuñ ko rafetalee ba Lac de Guiers jóge fële mu ne te xam naa ne Lac de Guiers 2 même bu bor bi matul ñu bàyyi ko Lac de Guiers dawul duggul fenn demul dikkul fii lay toog ndax nit koo xam ne àdduna bépp xam nañ ko mënul daw dem fenn mënul bàyyi làmb te saa yu jëlee avance mën na leen a fay ba mu jeex kon nañu xool nu mu rafetee ñu xool nu ñu ko jàppalee ba Lac de delluwaat ci ay mbokkam parce que ginnaaw yàlla ak yonent bi ay mbokkam moom la ñu yaakaar ndax moom moo fay góor te moom mooy jàppale papaam boobu ba tey nañ ko ñaanal yàlla mu génn wax ji bañ a bari polémique bi bañ a bari koo laaj mu naan la 60 millions a ah, di yuuxu def te kenn leeru ci kenn kenn xamul la dëggee de lum leen yëral kenn xamul ban problème la am ak ñoom kenn xamul lenn boo ñu naan léeg léeg lii kenn xamul lan lañ jotee xam nga foofu sax dañuy tatone rek nañ bàyyi yooyu yàq doomu aadama baaxul foofu foofu dama fi wax benn benn benn benn benn benn benn benn point ngir yàlla ak yeneen bi bu doomu aadama amatee problème bu ñu bëgg ay vie ci micro yii ba tax ñuy génn di tudd ay somu xaalis yoo xam ne ñun xamuñ ci dara nañu bàyyi di yàq gor ñi ak képp ku mënti doon li ngay dégg ci biti ak li am ci biir du benn am na loo xam ne ni tey jii diggante Lac de Guiers numéro 2 ak ña ko def yoonu Lac de Guiers numéro 2 new ci mais mooy borom tur te borom tur lu ko dugal dafay yomb Lac de Guiers numéro 2 nag li mu gën a soxla guddi yi ñu toll mooy solution tey jii li Boucher wax dëgg la am na lii ko dal nii bu daloon yeneen bëri du puus du paas te fay ko. am na yenn mbër yoo xam ne am na mbër yoo xam ne bu leen daloon du ñu puus te paas fay ko waaye code de popularité yooyu mbëri am la dëgër amu ko lii la dëgër am mooy ay rakkam ay frère ñu mel ni ñun ñu ngi taxaw di wax monde làmb ak kilifa yi nga xam ne Boucher mës na ñëw siq ak waa làmb am na ñoo xam ne ni bëgg nañoo dimbale Lac de Guiers numéro 2 mais xamuñ fu ñuy jaar ak képp ku bëgg dimbale Lac de numéro 2 numéro alaaji Bécaye Mbaye lu yomb la As Bécaye mbay Sénégal gépp xam nañ ko ñi njëkk ñëw muy kilifa gi nga xam ne moo dimbalee Lac de Guiers numéro 2 25 millions ci loxo Alaaji Bécaye Mbaye la jaar ci seen communication jaaraat leen foofu ngeen woo Alaaji Bécaye la ngeen koy dimbalee muy doon guddi Alaaji Bécaye jël ko yóbbu ko guddi kenn bañ koo xam ndax Lac de Guiers numéro 2 fii mu toll mooy fii fi mu toll mooy fi ndaw di gën a soxlaa ko ko soxla mooy ki nga xam ne tey jii ndaw bu li mu gën a soxla mooy ku ñëw taxawu ko sénégalais ak ku mu mënti doon ku mës liggéey ci image Lac de Guiers numéro 2 ngay journaliste su làmb di people di ku mënti doon jot na nga ñëw taxaw ko te ciy wax lu rafet boo ci mënta wax lu rafet nga noppi ci tam maandu ci problème mu jàmbur mais gars yi tey jii bëri na li gën a aggravé affaire yi mooy te ay journalistes yoo xam ne nii génn nañ tudd benn som boo xam ne nii loolu amul te tey jii loolu da koo yóbbu ci benn niveau boo xam ne bi àggu fa woon li ñuy wax te di ngeen ko gën a wax mooy Lac de Guiers numéro 2 fee mu nekk jombul kenn Lac de Guiers numéro 2 fee mu toog na la jombul kenn waaye nag yaakaar naa ne nit la koo xam ne nii ci àddunaam mosuñoo dégg Lac de Guiers numéro 2 ci benn problème mosuñoo dégg Lac de Guiers numéro 2 ci benn détail mosuñoo dégg Lac de Guiers numéro moo dóor nit moo dox nit lu ñaaw tey jii yàlla moo ko nattu te ko coono gi lu ñu mën ay doomu aadama yi nga xam ne comme suñu borom moo leen bind ñoo mën a war a mën a taxawaat seedeel Lac de Guiers lan mooy jukkoom li ñuy gën a soxla buus yi am na ay kilifa yoo xam ne xam nga leen xam naa leen te ñooñu jot na tey ñu woo leen ñu ñëw taxaw seen frère la de guerre numéro 2. te ñooñu ñu ngi ci réew te loolu bëgg naa nga ñëw ci. am na ñu si bëgg a dugg nii mais duñ tudd seen tur te incha allahu rabbi xam naa ne fii fan yi néew dinañ ci jàpp bu dëgër a dëgër te ci jàppee li ciy des du bari incha allah lii nag man maa ngi ciy gërëm personnellement Balla Gaye 2 ndax moom xel du doy bi ma ko woowee téléphone ne ko Lac de laa war a dem seeti mercredi parce que man suba laa am ci moom audience pour dem seeti ko def ne ma man li ma gënuloon sax mooy nga génn communiqué te bi mu demee communiqué ci laa bàyyi xel ni war naa mën a def conférence de presse ndax man lii conférence de presse musuma ko def ci laa ci waxtaan ak Fadam Fadam ñëw ñu woo Mass Dakar Live Mass dugal ko seen groupe presse bi ba tey ngeen ñëw maa leen ciy sant bu baax kon Balla Gaye 2 fi mu nekk ne la am na lu ko metti trop trop trop man leer na ma ne bu fi nekkoon conférence de presse bi moo koy def ndax idéem la kon maa ngi koy ñaanal yàlla di ko ñaanal wér di ko wax àdduna nii rek la sa mbokk jullit sa mbokk taalibe sa mbokk sans bu amee problème da nga ciy taxaw di xool yan idée ngay def ba mu sotti Lac de nit ku baax la Lac de ba mu dëkkee Géejawaay ba tey kenn dégg ko ci dara du xeex du xuloo amul ak problème kenn làmb ji da koy saaga da nga koy wax lu ne Lac de boo seetloo signature contrat am yëpp ku muy signal yaa koy agressé di ko wax lu nekk di ko def lu nekk te du bousé du def dara parce que bëggul yàq làmb léegi nag bu demee ku mel noonu buy defar làmb ba egsi fii tey ndogal lii dal ko warul woon yegg si fii tey waa làmb nañu génn jàppale Lac de waa làmb nañu génn taxawu Lac de waa làmb nañu génn soutenir Lac de suñu kilifa yi nañu génn dooleel Lac de Guiers yoon nag kenn du xëccoog moom yoon lu mu wax yoon la dañ koy nangu far force fara force waaye ñu ngi ñaan procureur juge ñëpp ñu jàpp ci te yàlla tax ñu jéem a waxtaan ak ñi nga xam ne tey ñoom ñooy ñi Lac de Guiers joteel ñu jéem a wàññi lépp jéem a jàppale la de guerre mu génn parce que fee mu nekk ne le neew ñu waru faa dem nax ña fa ne gënu leen ña ne gënu leen judd gënu leen dara waaye yàlla mooy dogal waaye man xam naa ne la de fee mu ne du place am place am mooy simit hmm. kon yàlla na ko yàlla jàppale yàlla taxawu ko yàlla dimbali ko man suba incha allah laa ko war a seeti bu neexee yàlla ak yonent bi te bu ma demee incha allah dinañu waxtaan bu baax a baax a baax lii moo waraloon sama toogaay tey fii. am na solo ñun nu ñu tàggatoo ñu ngi nuyu président écurie Walo mu ngi ni taxaw mooy ki nga xam ne tey jii mooy président écurie am mu ngi ginnaaw nekk nit ku modeste. mën na ñëw waaw mën na ñëw nga ne nga ñëw sànni ci ñaari baat kaay nga sànni ci xam ne tey jii gars yi mën la am waaw li daal nee na loolu am na solo mais daal li ñuy wax te ñëpp mën ko dégg mooy ñëwuñu ngir song yoon ñëwuñu ngir wax na yoon la dëgër dañ ko tooñ ñëwuñu wax pour yoon daa tooñ Lac de li ñuy wax ay ndaw lañu yoo xam ni tey jii dañoo gis benn doomu sénégalais bu tudd Lac de Guiers de 2. bi mu juddoo ba léegi kenn mosu koo dégg ci benn détail bépp monde làmb képp ku nekk ci monde làmb bu ma waxee bu sa wax mel na ni waxal nañ leen. waxal nañu CNG waxal nañ amateuru làmb yi waxal nañ supporters yi. waxal nañu mbëri. tey jii ak waaw. waaw ca ñëwal léegi waaw kon tey daal ñu kiy ciy jégalu baax. Euh, 25 waaw loolu loolu loolu ci benn point la boo xam ne ni agent am agent wu Sadio Mané. jaruñu tudd xam nañ ko. du agent waaw. waaw du agent am benn structure la. bu la dëgër mës dem. waaw xaw ma des sport xaw ma. des sport. ñooñu la dëgër dafa mës a dem visiter leen. Mm-hmm. Euh, soutenir leen jàppale leen bi ñuy door. Mm-hmm. ñooñu ñoo dem jël benn 10 millions jàppale ko la dëgër. Mm-hmm. du du Sadio Mané du kenn. Sadio Mané sax agent am génn na di démentir loolu kon nañuy bañ a nañuy bàyyi di wax lu leen wóorul moo tax lu bëri fi nga bëri na wax yi ci am nii xam nga yu bëri loolu amu ci waaw nañu bàyyi wax lu leen wóorul waaw wala di yàq doomu aadama wala di di yàqamte nit dara dal ko pour pour pour am buzz wala pour am coow mhm. di ci dugal seen làmmiñ loolu baaxul parce que liy dal nit chaque jour mën na laa dal li koy arrivé chaque jour mën na laa arrivé te loo nit ku dund gu sotteegul lu ne xaj na kon chaque jour nit nay xool boppam li nga xam ne tey da koy bañal boppam mu koy bañal nit li nga xam ne tey bëggalu ko boppam mu koy bañ a bëggal nit parce que loolu mooy tax nga avancé loolu mooy tax nga am jàmm. te gis nga la dëgër numéro 2 point bi ko dal nii bëri na luy rey doomu aadama xarit moo koy teg bëri na luy rey doomu aadama àndandoo moo koy teg di ngay ànd ak nit wóolu ko jël sa lépp teg ko ci moom moom ndekete ci sa image mu kii liggéey loo xam ne yow yëgoo ko te loolu moo ko gën a rey moo tax tey jii doomu aadama bu nekk képp koy mën di séqal wala ngay ànd ak nit na nga xam fan ngay yem ak moom. rawatina yow mi ànd nga am image loolu am na xool benn question. waaw loolu war na mën a ne tey CNG bu ñu organiser woon tey xaalis bi ñuy dagg mbër yi xaalis bi ñuy bi ñuy li ci gën a garaaw sax avant ñuy tëj nit kaso kenn yéenewul nit kaso. Mm-hmm. ndax benn mbër ñëwul di bëre. naan bu buñ ma tëjee CNG jàppale ma li ci gën a garaaw mooy yor assurance su mbër mi mbër mi buy bëre looloo gën a tuuti te CNG fi mu nekk nii gëm naa ni defuñu ko mooy assuré benn fan lañ lay assuré mooy jouru làmb ci làmb boo ko xasee ba jël ba am licence muy Europe États-Unis fépp normalement dañ la war a assuré pendant eh, après làmb ci dañ la war a assuré parce que tey bu balaa combat mën ngaa gaañu dañ la war a assuré parce que da nga dagg licence ba biir làmb ji dañ la war a assurer boo bëree ba pare ñu tog ñu teg ci ay deux mois wala un mois pour assurer la xool ba xam yow ndax nit mën na bëre tëccu te du xam ne dafa tëccu nit mën na bëre gaañu te du xam ne dafa gaañu après la koy sentir kon CNG balaa dara balaa ay euh, jàppale nit ay kasoog yooyu lii mooy njëkk loo xam ne CNG war na ko def kon war na def tamit mbër yi xaalis bi leen di dagg ak yooyu yëpp ñu ciy génnee benn somme parce que dagg mbër ay 4 millions dagg mbër ay 5 millions dagg mbër ay 6 millions te mbër yi ku ci am problème du gis xaalis boobu. ku ci am problème 100 la ko ci jox. loolu si trop si trop. mais xam nga tey jii non démarche yooyu ñoom tey jii CNG mooy njiitu làmb ni nga mën a def ba tey jii mbër mi buy bëri ci yow lay sukkandiku. ni nga mën a def ba mbër mi bi am licence ci yow la sukkandiku ni nga mën a def ba mbër mi bu tey jii bu ñëwul heure nga dagg ko kooku tey jii war ngaa mën a am loo garanti ci vie am dara amul dara lu ñu garanti ci vie wu mbër amul dara mais nag loolu faute bi yëpp waa làmb la faute bi yëpp waa làmb la tey jii tey jii lépp lu am ci làmb muy CNG di promoteur di ku mënti doon mbër moo ko fa bàyyi mbër mi ko fa bàyyi lan la am ci làmb mooy Lac de Guiers numéro avant kenn def ci moom ñaar dërëm CNG ñoo waroon décolorer benn moyen ne tey jii liire de ñoo ko jëlee ci biir làmb ak liggéey bi ñuy liggéey ci làmb ñun waa CNG ñoo ko jàppale la de Guiers numéro 2 mais tey jii ak ku mënti doon boo feebaroon bay tëdd hôpital tamit CNG amul dara loo xam mën naa taxaw jël la en charge wala dara ci làmb mbër bu tardé ñu dagg ko bu tardé ñu dagg ko bu débordé ñu dagg ko bu yéexee ñu dagg ko avertissement ñu dagg ko coow ñu dagg ko CNG bu juumee sax ci ci bu juumee ci site bi site bi ngay bëri ba ñu juum mër mooy joxe war xaalis pour ñu ñu revoir defe kii boobu. recours bi recours bi. mbër mooy joxe war vingt 25000 25000 pour ñu xool nax daan naam daanul kon léegi CNG moom léegi moom lan mooy rôle moom léegi moom moom da moom léegi moom kon léegi mbër mi moom mooy ñaaw njemb ñaaw nday ñaaw baay. mbër mi dañu waxante dëgg yow mbër mi la ñuy dagg bu juumee mooy fay lu mu def mooy fay lu mu def dina ko du dëgg. lu mu def ñu ne ko du yoon ñoom léegil ñoom lan lañ ñoom lan lañ ñu apporter ñu ñun dañu yor licence di bëre licence sax bu dañu bokk ci làmb jeex na làmb de ñoom ñoo ñu war a jàppale xaalis boobu na ñu xool di ci jàppale doomu aadama yi parce que am na fa te ñu ngi koy dagg Lac de Guiers dagg nañ Lac de ay millions yi million dagg nañ ma mi man mi dagg nañ ma man mi ndaw mi dagg nañ ma bay bëgg a dee mat dagg nañ Balla Gaye de ay million Balla Gaye li ñu ko dagg contre Boy ñaa kenn xamul lu mu toll li ñu ko dagg contre Gris Bordeaux kenn xamul lu mu toll te combat ma Gris moo dàq ci àdduna bi te xoolal dañ koo dagg dagg dagg ba muy miir yaa ngi dégg këram laa dem fajar gi gis ko mu toog jàpp bopp bi ma ne ko lan la mu ne ma lañ ma dagg keneen a keneen Gris Bordeaux boo ko woon léegi bu la waxee léegi xaalis boobu yëpp léegi buñ jàppee kenn wala mu feebar xoolal booy kase kooku moom gën a métti ci làmb benn champion ñu naan ko kase paralysé la def kenn waxatul ci ay waxam loolu daf ma metti ci làmb Jules Baldé Junior yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana bi mu faale bi mu feebaree kenn taxawu ko ci làmb yooyu dafa ñaaw waaw mais nag foofu man maa ko tontu quoi nga mbëri te jii làmb dafa toll foo xam ne nii ñoom ñun lu tax ñu ciy wax nekkul ne kii géejawaay la dëkk nekkul ne man da ko mosoon naa dëkk géejawaay dañ ciy wax en tant que làmb dañuy wax en tant lu ñu war dañ ciy wax en tant que tey jii man la dëgër numéro 2 bu génnee kaso sax di bëriwaat ci làmb nañ doon bras de fer maag moom laay bras de fer moom li ma bëgg a wax dama koy wax li ma bëgg a tontu dama koy tontu koy wax en tant que nit ak mbokkam mbër yi ñoom bu fekkee ne tey jii am nañu lu dal seen morom ñoom bu ñu génn wax loolu ñoom la concerné ñun li ñu concerné mooy li ñu war mooy li ñu war a mën a jàppale Lac de Guiers numéro 2 ndax gis nañu tey ji ay influenceur u làmb lañu ci làmb lañu nekk di wax nit ñi duñu déglu tey bu dara dalee nit ci làmb balaa cee kenn wax ñun ñoo ci war a njëkk a jóg Lac de Guiers numéro 2 fii mu toll soxna si mooy solution la ñu bëgg te solution boobu dañ koy ñaan état bu senegal nañu jàppale Lac de Guiers numéro 2 mu dellu siwaat ndax monument la biir Géejawaay mbër la moo xam ne heure bii nii ñu ko téye nii rek bu buñ ko bàyyi woon ci benn fan mën na ci jël kese boo xam ne nii liñ koy wax mën na ko yor yëpp mën na ko fay kon tey ji kooku ku war a fay bor boo ko téyee kon kooku mayoo ko possibilité pour mu fay bor léegi nag gis nañ ne am na ay nit yu ci ay moyens dañuy ñaan autorités yi yi nga xam ne nii géejawaay la ñu dëkk ñii parcelle ñii yaraax ñii fu nekk ku ci mën a dimbale Lac de Guiers numéro 2 na nga ko jaarale ci alaaji Bécaye Mbaye nu mu gën a gaawee loo koy dimbale mu nekk loo xam ne guddi lañ ko def ñu def ko sutura alaaji a jël la nga moom la yorloon nañ ñu daal di koy teg na mu mën a fay bor yi mën a dellu siwaat ci kanamu njabootam ndax ku ci nekk loo yéene nit rek suñu borom mën a laa dal mu dal mu dal la te bu la dalee koo la taxaw rek ngay bëgg loolu rek a ñaan sénégalais yëpp axlul làmb ak waa géejawaay waa waalo écurie waalo écurie Mor Fadam écurie Papa Kane écurie Ndiaga Sarr écurie yëpp ak président yeeg waay ñoom paateeg ñoom mooy ngaylu mag ñëpp waaw ñëpp lañ génn def conférence de presse ñaan nit ñu baax ñu ñu jàppale Lac de Guiers ñaan justice ñaan ñi nga xam ne ñoo ñoo joteeg Lac de Guiers numéro 2 ñu jéggal ko mu nekk loo xam ne dina rafet na ñëpp génn bu ñu koy defee arène national nañ ko fa defee bu ñu koy defee parcelle dañ ko fa defee ñëpp nañu génn soutenir ko maa ngi woo mbër yëpp ah suba gars yi ko def waaw suba dañ koy def ñoom waaw arène nationale alhamdulilah suba na ñëpp génn dem arène nationale ñu soutenir Lac de Guiers 2 yaa ngi dégg yàlla jàppale ko fi mu génn fee mu nekk ne parce que fee mu nekk du place am parce que la dëggee daa bokk ci làmb jeudi jërë ngeen jëf kon jërëjëf